waliyullaahi bu mag alhaji Samba Ndaw waliyullaahi bu mag la mu nga dëkk ca jam-jam diggante jam-jam ak tawama Ismaila Ka bu mate ñetti kilomètre ki la ñuy xem Ismaila Njama la ak moon Njama Ibrahima Njama alay Samba fi mu ci jam-jam dëkk bi wax jam-jam mok tawa gugu su matee ñetti kilomètre ci lay yem taw maa isma dafa am taw moon njama am maa ismaila njama moom moo ne woon jaama maam moon njama doon magam hmm? maa ismaila moon jama moo jël ci ismaila njama mu sanc foofu dëkk tuddee ko tawa tawa googu ak jam-jam soréewul jam-jam googu nag la alaji sàmba daw dëkk li gën a siiw ci histoire ñi koy nettali ci dajeem ak sëñ Omar Ndaw bi mu tolloo fi gaa yi toll xam lu mu ci yàlla ci la gént gis sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñetti ajjuma ñu koy bàttaleeg jëmm ju mag ji ñuy wax Seydi Laaji Mandoon booba nag la daal di jël matuwaay fas yéene ñëw seet si ki nga xam ne mooy rajo Mandoon ñu ñëwee nuyuwante ak sëñ bi bay dem sëñ bi wakk ci mbub mu toog mu ne ko sàmba dikk nga mu ne ko waaw mu ne ko juróom-ñaari xat rasulullahi mu may bàttale yow am na ñu ne diir bi alaaji sàmba wër alaaji omar ndaw ba ba mu koy gisee ak diir biñ gisee juróom-ñaari at ndax alaaji sàmba bi koy tegtal omar dem na ba sëñ omar daraame radiallahu taala anhu bu xarafa waaye du xam na um, gannaaw si gi ñuy fay ñëwaat kon du Omar dara mi du la ñëw Daaru Salaam moom Daaru Salaam la fekk sëñ bi yar ko ko ci yàlla bi ñëwee wax nañu sëñ bi def na ko fekk naa ci yow ñetti xam-xam man nga alquran xam nga sariyan xam nga kas bi des mooy maarifatu billaahi mu ngi ci man Omar Ndaw danaa ko def ci yow alaaj sàmm Ndaw ñu jëflante nag jëflante gu sore sell alay sàmba nag sëñ Omar di dem ak ñëw di dem ak ñëw ba sëñ Omar defar ko ci yàlla xamal ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndaw moomu mu dëkk jam-jam mu jeexoon tàkk ci sëñ bi bëggoon ko bëgg gu jéggi dayoo yaa ngi may laaj xalifaam xalifaam bi mu gaañoo léegi bu matee 15 jours ci lay yem day Ahmad Tidiane Ndaw lañ ko doon wax Tidiane Ndaw lañ ko doon wax mu ngi nekkoon foofu jam-jam yaakaar naa rakkam léegi sëñ Moustapha mooy xalifaam Alaaji Sàmba booy dégg ki sëñ bi joxoon xalwa fukki fan yi mujj ci weeru koor muqaddam bu ñu lay wax mu muqaddam boobu muqaddam boobu mooy Alaaji Sàmba la mooy ki ñëwoon ziyaara ji sëñ bi sëñ bi ne ko dama lay xiiwi nga dem defal ma xalwa bi dama ko daan def ci fukki fan yu mujj ci weeru koor dama bëgg boo demee nga defal ma am ngay dégg na moom moo dem defar lu pukkus pour def xaloo boobu ba mu toogee ne bisimilah jinne yi ñoo na fañ koy rey jëmmi sëñ Omar Ndaw feeñ ci biir jinne yi jinne jum laal du tax a yëngatu jinne jum laal du tax mën a yëngatu ba xalwaam bi jeex la la ñëwaat laal jinne yi alay sàmm ndaw laal laaj jinne yi na leen yéen di ñaa ñu ne ko ay jinne lañ mu ne fu ngeen dëkk mun a ŋàbba dëkk yi dañu toppante tawa jëm-jëm ŋàbba noonu la ñu toppante dëkk yooyu ray sàmm na lu sen tang ñu ne ko yow dañ ñewon pour ray ci la ndax xam kan nañ ne sa yap yu ku ko mos yaramam haram na safara ray sàmm na ba ngeen ma ñu ne ko yow ba adna tas dooruñ daje yow bi xalo wi jexé nak ki la alaaji sàmm ñew di nettali suñu aman ndaw suñu aman nak fañ na wara fa dañ dëkk dooruñ fa delu motus na leen ñu top sama baram ben par ben ben par ben ba adna tas dooruñ daje yow nga fatne ne alaaji omar ndaw bi sañ ci medina ndawen bi bi mi nodd bi gëna gëna gën a kenn ci magi sëñ Omar Ndaw yi nee na ma keroog bi ko sëñ Omar Ndaw mortasoo ba léegi ba ba ma ko yow mun a jën a jàngee aliyeer di yàlla buñ dajeeg moom te ñëw na ci kër sëñ Omar Ndaw wax sëñ bi ne taal sa bi ne bi la sëñ bi gàddu mu taal kër gi yëpp mën na nawet ji waaye kenn xamul lu mu doon alaysa Omar Ndaw moom nag dundatul génn na jamono bay Tijaan moo noon xalifaam moom bi mu génne jamono léegi sax yaakaar naa matul 15 jours ñu ñaan yàlla taw de ci kaw bi xurmati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku jeexoon tàkk la ci Seydi Hadji Omar Ndaw ku bëggoon sëñ Omar Ndaw la ku ko xóolu woon tabaarakallah tànkam bi bàyyi lay sàmba bay Tijaan fa tegoon tànkam kon bàyyi lay daal maam sax lay wax ku doyoon waar la ku bëggoon sëñ Omar Ndaw la ku jeexoon tàkk ci sëñ bi te wax nañ ne moom bokk na ci ñi daan gis yonent bi alayhi salatu wasalaam moom bay alayhi salaam ndaw doomi sëñ aman ndaw yi man sa ke magon mustapha magon mansoor top muntaha top seydi basir top, seydi abdul top, taha top, murtada top, seydi tahir top. yaaka na la demee insha allah taala ci njaboot sëñ man ndaw waaw mamu dem mamu dem nag danaa gëstuwaat mbiram eh, kii nu tudd <laughs> man lii la nag may jaxase lii la nga ne Mamour Deme Mamour Yacine ndax Mamour Deme mooy Mamour Yacine rek waaw ah, kan mooy Baye Yàlla Joma Dramé wala Malle Dramé moo doon Baye Yàlla Joma Dramé ngoog ñoom ñaar ñi dañ may xaw a jaxase lool lool lool incha allah danaa ko gëstuwaat <laughs> te moo du ma la ci tontu lu wér. sëñ Modou Cissé ñu ngi lay ziara ay yow kat sëñ maa ngi lay door a xam yow yaay suñu sëriñ ci taarix yaay suñu sëriñ ci lii tabaarakallah yaay suñu sëriñ yaay suñu sëriñ ci lii lii yéen lañ cee tabaarakallah ñu ngi lay jaajëfal lool yu bëri daal. waaw sëñ bi neuf cent quinze wax lu maarifa nag xam-xam bi soriwut loolu moom nañ ko bàyyee gaay rek <laughs> ndax wàllu moom xàgguguñ fa yaakaar naa ba di ci wax tabaarakallaahu liñ mën a wax daal tudd tur wi ndax noonu la ko tuddee woon ngoog tabaarakallaahu li leen différence daal xaama ko wax dëgg yàlla <laughs> waaw bu dee ci wàllu dat de wax dëgg yàlla laajoon naa ko sax Omar suñu Omar juuf doomam la moom la tuddee suñu Omar Ndaw waaye waxuñ woon dat dafa ma diggoon naa fa dem te ba léegi ngant jot ma mënuma faa dem jëflante bi daal mooy koo xam ne yéeféer la woon koo xam ne ab saltige xam-xam yu bari daje ci moom ci xam-xam yu ñuul yooyu tiimaanu lool yàlla dogal muy dox di wër dara ñi ne fas la ba yegg si daaru salaam si la ko sëñ bi woolu bi ñëwee wax ji mu wax ak sëñ bi sëñ bi dëxal ko ne ko boo demee fas la dana si moom it mu dëxal sëñ bi ne ko su yi ñëpp danaa ñëw si danaa fi ñëw mu demee fas yi ñëw xel mi ne ci sëñ bi rek mu ñëwaat ñëwee ci la tuub tuddee Seydina Seydina Jumala tuddee ko juuf Ibrahima Diouf Ibrahima Khalilullah sëñ Omar Diouf di moom a nettali doomam na mu ne ma Moustapha sama baay nee na kere bi ko sëñ bi tuubal daf ko daan lu mat cinq mètres képp koo xam bëgg ngaa gis koo xam ne daaje mu ca safara kaay nga xool sama baay ci toog ci suuf sukkaat <coughs> sëñ baa ngi ko bu set becc ñaq waa ngi saratati sim tuuti mun ne sëñ bi mel ni lu aliyeeraat lu daan lu mel ni dix mètres ne képp koo xam ne bëgg ngaa gis ni taal jën a xul kii fa na daajeem ba sëree woon ca safara buddee naa ko daajeem mu yegge ko ca aljana lii de doomam yu ñoo Omar Diouf moo ma ko nettali woon noonu la ñëwee ci sëñ dégg wax nañ ne xalifa bi sëñ bi Basiir moo koy xamee woon moo ko jàngal lu bari ba mu taxawee ay julli da mën a def li mu war a def yëpp gannaaw si nag ay coow yu xamoon eh, xam naa ngeen baxal ma ko ma tënk loolu ndax su ma ko na ma wax rek ni am na fu ma nu may waajal dana ma gaar euh, su ko defee Ibrahima ci la yàlla dogal euh, bi mu ñëwee ci sëñ bi sëñ bi moo ko xebal na ko demal sañ eh, demal demal demal jógee fa nga fa nekk noonu ci la daal di ñëw Saalum ci penku Kaolack foofu ci fara bu dëkk fa. Seydou Mansour waaw li nga wax am na ci moom ndax ku teel a bëri xam na la sëñ Omar Dramé moom tey ba kër jim moo ko jàngal ñëw na jaamal waaye yàggut fa. Euh, ku bari xam xam la teel mbolo mbooloo am maqama ñu teel ko jiñ maqama lool mo seydi mansour suma jumul mu ngi dund 33 ans bayam moom ñek na génne bayam 7 ans parce que 70 la génn jamon bin na téré di way yonente bi alayhi salatu wasalaam bin na téré way bayam seydi alaaji mandam ma ngi yor ben document bo xamné ne sax moom moo def ci ben conférence doon ci waxtaan taawanu alal birri wa kon Seydi Mansour sept ans la njëkkee bàyyam ci suuf dëgg la teel nañ ko jiñ maqaama lool ba bàyyam daan na wax ne Mansour ñaari koy duñ bokk mbalk waaw Seydi Mansour ku kéemtaan woon lool ku xereñ woon nag ku amoon relation pale bii tey ña fa njëkk dem Seydi Mansour bariwut te dafa taaru woon mën a sànce lool <laughs> tabaarakallaahu am xam-xam joo ca kaw daan def ay karaama man Mansour daal ku kéemaan la woon waaw kay mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziara di nuyu sëriñ Modou Cissé li mu wax yëpp tabaarakallaahu ci moom la nekk ñu ngi koy bëggee di ko ziara di ko moom itam ñu ngi koy bàyyi xel eh, di jéggalu nag dafa am réunion bu ñu war a doxol léegi bu war a jëm ci gàmmo gi sama bët de widd na émission bi xam naa fii laa koy yemale rek ngeen di ñaanal ñëpp tawfiq wa taysir wal yumna wal baraka bi jaay si dela jomar ndaw lu jub nak allahu la lu ci dëng Moustapha Ka gàtt xam-xamam fasa fasaak teye di lool dafay ñu ngi leen di jéggalu bu bah, a baax a baax ngi di jéggalu ci bu baax di jéggalu sëriñ si ci biir kàddu gi ñu yëkkati ci seen kaw ñu ngi ciy jégalu bu baax di jégalu mbokki taalibe yi itam di nuyu sëñ Amat di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla dafa ñu tawfiix bu baax tey waa Taayifatu Daaru Salaam ñoo am benn réunion fële ci marché joor te fa lañ war a dem léegi incha allah taala ñu fas yéene waajal gàmmu Daaru Salaam ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf Cheikh Mamadou Moustapha Ka waaw ñi ngi doole rek di la di la di ñaanal macha allah waxtaan wi am na solo am na solo am na solo amati solo bokk euh, yal na yàlla gërëm ko Cheikh Seydou man ndaw mi suñu xulwa yàlla na gërëm ko. di jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam macha allah kontaan nañu euh, ndaw ñu mel ni yow kër diine gu nekk daf soxla waaw ndaw ñu mel ni yow kër diine gu nekk daf leen soxla ndax taale bi it dana bokk ci li koy ci du li koy dolli mu xam ci am kan la mu xam ni mu téye lan la. Moustapha jamono dafa jaxasoo fi mu nekk nii te ñu bëri xàmmeetuñ kan mooy kan kan mooy kan te li ko waral mooy coow lu bari te ki ñuy yàlla jox doxaliinam ak mbiram wuuteeg doxalin yooyu nga xam ne coow li dafay bëri te duñu xam li xew léegi nag ku mel ni yow di leeral yi ngay leeral dafay am solo ci taalibe yi ngir ñu yóbbuloo ko ndax kat ki ñu àndal moo ni bëggee moo ni doxalee am na loo xam nag sëriñ du ko def wala du ko sañ waaye taalibe yi nag am na lu mu sañ ci sëriñam te sëriñam sañut ko ci boppam kon ñu ngi lay sant bu baax ka ñu ngi lay doon ñaanal bu baax baax baax allah li dal na yaatu na yaatu na yaatu tabarakallah lu neexa a déglu la lu neex a la ñu lay sant bu baax comme ni ko waxee di nuyu mbokki taalibe bi yëpp ñi nga am ci émission bi yëpp sëñ ci Cissé moom itam Amar Cissé moom itam ndaw la loo xam ne bëgg gi mu bëgg El mar Ndaw nit mënu ko wax waaye deret la joo xam ne dafa roogaat ci moom ci baayam la ko jëlee baayam ëpp ko cër ci alaajo man ndaw yombul ndax bëgg gu bëgg borom daaru salaam baayam moo bëgg alaajo man ndaw lu nekk nekk xale bu la xoolee nga xam ne yow alaajo man ndaw moo mooy sa sëriñ rek keneen laxasaa yu na nekk sa taalibe nekk sa taalibe ku bëgg lu baax la nga bu muy am katan sa bu mos luma génn dem luma bu bisu luma yi suñu suñ wosi wasifa bi ndaraame ndaraame yi chaaw chaaw yi dañ fay bëri ndax buy ñew rek gis nga lolu ñuy wax sàmbakuta mbus bam fex la ci amé bu ñew rek bicc ko ci ci ci ci euh, euh, buntu malam bi chaaw yi gëna yok sen baat te xam ne seen reer dina neex loolu yëpp bëgg yàlla bëgg rasulullaay bëgg Seex Seydi Omar Ndaw moo ko waral gu baax ku bëgg Seex Seydi Omar Ndaw bëgg njobootam bëgg ku bëgg Alaaji Omar Ndaw moo tax bu mel nii ci Alaaji Omar Ndaw euh, ñi ko xamul lay bett waaye ñun ñi ko xam fi mu jógee bi ñu bett ah moom it nag macha allah biñ ñëwee yàqu ci loolu dara teyam suba bëccëg léppam guddee bëccëgam lépp alaajo mën la ko am amar soxla bu mu xam alaajo mën ko fa baax lépp loo ko dañ ca dem ndax alaajo mën daw la mu ballam du nekk dem ndax alaajo mën daw kon ñu mu baax itam yàlla barkeel ko barkeel njabootam def ko dëgg dëgg bi di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ ñëpp